jërëjëf euh, jaajëf Aliou Ba euh, passe partout jërë ngeen jëf euh, Maysa mbay auditeur ak internet yi nga xam ne ñu ngi déglu RFM 94.0 point 0 ñëwaat seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg le revenant ndoy Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye nga xam ne tabaarkàlla bu méttee day toog bu neexee day toog ak lu mën a xew day toog Bane maa ngi lay siyaar. waaw loolu gaarawaale la maa ngi leen di ziar bu baax. <laughs> maa ngi leen di nang maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax di leen ziar di ziar Ndiaye di ziar auditeur yëpp. di leen baalu àq te di leen ñaanal jàmm yàlla yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci partout rek. Ndiaye maa ngi lay ziar. <laughs> delloo ziar bu baax a baax Ababacar maa ngi nuyu Passepartout moom sama waay la. Mm. fo dafa bari Sénégal. foo mooy. foo passeport yaa ngi koy dégg. Mm. foo test Covid yaa ngi koy dégg. Mm-hmm. foo gendarme yaa ngi koy dégg. Mm-hmm. foo policier. foo animateur foo journaliste foo foo foo ndaw si nag moom. dafa am problème parce que doom ji doomam moo tukki woon ba am passeport ak yëpp. Mhm. ñëw du renouveler passeport ak foo baan ay nit ñi foo. waaw ah, am na ay nit ñi foo ay foo abaa ci nit ñi foo yëpp déglu ndaw si Ndiaye. ayca. ça c'est tey cri du dama am lu ma metti Sénégal vraiment doo ko bëgg a fësal mais. amna lo loo bo ne bëggee mu faju foog nga yuuxu ko mu ngi wax affaire passeport diplomatique faux usage de faux ay coowal visa ay activiste ay député ñu waxoon fi waxu benn faux médecin yaanaa tellement maa ngi am lu ma metti sama doom boo xam ne maa ko jox ci sama biir mu juddu Sénégal ñu déclaré ko au Sénégal mu am passeport am di ci tukki ba xale bi tey am 11 ans ma dem ci centre d'état civil biñ ko déclaré woon ñu ne ma elle nekku fa daal nekku fa kenn nous ko gis ci benn registre la personne bi ko déclaré woon nee nañ yaay la personne a été incriminée ci affaire njuuj njaaj yu bëri que la personne nekkatu fa qu'elle avait même été arrêtée des trucs comme ça mais nous dans tout ça xale bi tey dem ba toll ci di un am ci am ci yenn ci turam ak date de naissance am ak yëpp ak numéro registre boobu ci lañ defalee léppam ba fi mu toll elle a 11 ans elle a eu un passeport ba passeport bi expiré ba ñu war a renouveler passeport bi mais introuvable démba démba sama kóllëre sama xarit koo xam ne moom la mooy man may moom affaire vaccin pour mu mën a dem à l'étranger le vaccin qu'il a n'est pas soi-disant accepté par les autorités dëkk bi muy dem ñu ne ko de vive voix boo demee bërëb sàngam ñu defaral la euh, une fausse carte de vaccination avec vaccin bi nga bëgg dans tout ça où est-ce qu'on va au Sénégal des axes d'état civil yu baaxul ay nit di jënd de naissance nit di de permis nos permis ne sont pas acceptés ci dëkku de yeneen yi ndax dans njaaj ndax dans lu bon ndax trafic usurpation d'identité usurpation de fonction ñun kañ lañuy soppi suñu jikko yi te bu ñu jógee di wax ay tijaan lañu ay mouride lañu ay jullit lañu te duñu def mukk

maanaam da ngay gis kii nii euh, moom am na problème mu këyit ñu def ko ay faux këyit ba mu ba doomam am këyitu nu mu tuddati euh, passeport am mënu cee jot. Mm-hmm. mu mu war a dem wuti test Covid mu xam fu koy defee am ku ko ñëw proposé di ko am na foo xam ne mën naa laa fa yóbbu ñu defal la foo test nga dem. te nga foo tas yooyu lu am la ci dëkk bi. ñu bari ñu ngi ciy liggéey xaalis bu weex tàll tàll am na bërëb yoo xam soo demee ñu defal lu foo tas soo demee aéroport da ngay jàll. sama doom lan la ci wax. ah faux parent. faux parent. Ah, li ndax du émission kon. <laughs> ah damaa tiit de. Ah, nañ parent. parce que kii nii. Ah. dafa nekk bitim réew. jabaram wan na lor. am doom gaañu. mais hmm. doom ju judd na. doom ji doon doom ju jigéen. mais jabar ji sëy sëygul woon mi ngi woon ci kër ndijaayam ndijaayam ki gaañu mi ngi woon kër ndijaayam jabar ji sëy sëy goon jëkkër ji yónnee xaalis ñu tudd mu nu ko tuddal leen ma sama doom yaayam ginnaaw yaayam da doon mucc gaañu ci bi ñu demee quelque temps après mun leen doom ji nañ ma papa ji ni doom ji nañ ma ko joxal sama yaay ou bien jox ñu joxal ma ko sama mag bu jigéen puisque moom mosul am doom léegi nag kër gi xa bébé bi nekk di ko xëccoog waa kër waa ji waa kër ki ko jur maanaam ñoom nijaay. waaw ñoom nijaay nijaay yi ki fa. voilà ñooñu ay maam lañ ci bébé bi. Mhm. di ko xëccoo ba paa ni leen ginnaaw yéen koy xëccoo. Euh, mais yaayam ni leen ginnaaw ñoom la perte seen doom ba pare nar a perte seen sët. ñun bàyyi leen ko. Mhm. mais gi nga bàyyil boobu ñu leen ko bàyyee. Mhm. Ndiaye déglu. damaa takkoon sama soxna Ramatoulaye xel la yéen a yéen a gis moom mbiram. le 9 septembre 2001. ma am doom sama doom juddu le 30 mars 2004. parce que Amérique Amérique ma waxoon sama grand frère ne ko xale bi ne ma ko tuddeel nga nga tuddeel ma ko yaayam boo ko tuddee yaayam ba noppi joxal ma ko sama grand muy sama mag bu jigéen bu laa ngi ma ko tantam muy mag mag yaayam ndagam kooku sëy ne ab diir amul doom suñ borom def kii am doom génn àddina kon nañ ko joxal keel léegi nijaay sama sama doom nijaayam muy sama doom nijaayam ak jabaram ñoom ñaar ñu def ñu di xëccoo kër bay jooy sama mag bu jigéen sama mag bu góor woo ma ne ma ndagam suñu borom dafa defoon yaayam jotoon sey say ci kër gi suñ suñu borom dogal dogal coobareem dafa leen jërale ñu ko xëccoo bay jooy kon ñàkk seen doom ñàkkaat seen sët day xaw a met nañ ko fa bàyyi ñu doo ko xool sen doom ba xale bi màgg bi nga xam ne xale bi commencé na màgg lañ ko ba commencé xàmmee ci lañ commencé xañ ay param nangoo tooñ mu xam kenn ci ay bokkam li sama jàpp faata boobu sax ñëw naa Sénégal ba xale bi mm, mi ngi am ben weer wala weer ak genn am am na sax ay photo yo xamanteni bi nga bi mu àndee moom bu neex manal manal ak am baye yalla def ma ñu sangal boobu bis bi nga xam ne ñëwaat naa Sénégal muy 2006 bo ba xale ba nga am 1 an un an man nek ak sama dom kër daf ma takku lool wax xadi wax de yalla bañ xamé na ma nga soog ñu Sénégal sama dom gis na amna ak chauffeur gi ci man dañu gaaw xëy bara wale ko yobu ko Dakar def na Sénégal 3 mois di leen wër mënu ma xam fu nek nga xam daanaka gisaatuma sama dom boba boba la na won damay dem sistis and ak ñoom dem pëlis ñu di wër ko ba ak fi ñu nekk Dakar mu jël ko nangu ko sama yaay ñaan njëkk dama ñaan njëkk ba tax këram ma bàyyi da xale bi nga xam ne xale bi am na neuf ans en 2013 sama ma jëkk ko sama yaay yàlla na ko yàlla si moom yaram mu munu ma ne moom bu fekkoon ay tànkam neex na moom mooy dem di seet xale bi waaye nag attaque attaque mi nga xam léegi te ñoo waxtaan ñoom bu ko defee xale bi saa ba école tëjee ñu ñu doog ko andi fii. xam ay parents di xam fi mu ba dafa am lu ma un mois sax wala quinze jours di gën a daa di woo maami xale bi ki nga xam ne mooy moo jur maa yaayam wax ko ko mënuma léegi da ngay woo ni jaayam ma woo ni jaay bi wax ko ko mënuma léegi ah, naa ji waxtaan ba xam muy jabar ji bintu sëy man ko ok ñu waxtaan xam na nanguwuñ sama jabar din sama jabar ko dina dem jëli ko indi ko mu tabaski ci kër gi ba tabaski ci gi bañ tabaski ba noppi mu delloo ko ba sama yaay dafa àgguñu gu ko ma ñëw Sénégal 2017 euh, dem waxtaan ak ñoom boobu xam na boobu xale bi am na douze ans jàpp treize ans mën leen ndagam ndagam xale bi ci sa ci son ci sa son loxo la màggee léegi dama dama bëgg léegi ngeen al ma ngeen ko mu nekk ak man ba kër may dellu ndax mu gën maa min dal ma gën ko ma ne ma daal man moo da ko mu yendu buñ buñ buñ bu kereb ci bisu ko rek ñu andi la ko mu yendu ak yéen man nag yendu rek ñoo wax de mun waaw man ki man ne mën ko xanaa xamoon ne kii man may bàyyam xanaa xamoon man ma bàyyam ñun ma ax ah, xam nañ koy mën ko léegi lan moo tax ngeen ngeen yendu rek ngeen mën a ci sama doom ñu dem ci seen ki nga xam ne mooy seen magu yaay wax ko ko sa nijaay woo leen téléphone ne leen lu ngeen wax xaarim mu wax ko lu ñu ko wax mu ne ko ndaga moom day abbu moom moom doomam day abbu nanguwut day abbu ngeen bañ ko àll kon léegi xanaa kon léegi ko ko ko sañ ko sañ am léegi sañ na nangu ne kon léegi jox leen ko doomam ba dem fa masla wax ba sonn ñu taxaw tàng teem na duñ ko jox doomam ñu moo ko duñ la ko jox ci nii duñ ko jox ci nee sa sama doom sama lox masta jug ci moom ni mu juddoo ba nim ba nii booba laa bëggoon dem sistis muy 2017 bokk yi ñaan ma ne ma bu fekkente nga dem sistis dina xaw a kii daal nagam ñëpp ay bokk lañu nga dañ ko dañ ko ragal ci biir bokk yow boo delloo ñun diñ dox ay tànk jéegu ba xam dina sottam déet ma dellu ñu doon ay tànk jéegu ñu lànk ba ñu soot sottiwut yàlla def xale bi fekk na moom day jàng alxuraan na day jàng alxuraan ñu yóbbu ko ñu wax daara yi xaada njaay resit ci mbàkke benn bis ma yónni sama jabar dépassam ne ko joxal ma ko sama doom yaasin ne ko joxal ma ko lii sama doom bi sama jabar demee da ko yóbbu dajeeg maam ji maam ji ne ko yaasin léegi ma dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko yóbbu daara daara yi xaarim bi ay recite bi ñu ma ko waxee ma ne kon kon foofu de man sama xel dal na foofu ndax xaarim ma daal ma na benn xale bu fi nekk bu ñu ma ne sa ma ne ko sama doom la mu ne kon na ba suba ci ëllëg sa xaarim boo ma téléphone ne nekk nee na moom loolu sant te nee naa ko ndax xam nga xaarim bi nekk Amérique mënum déedéet xaw ko de mu ne kon yow damaa jàpp ne yow jaawale ma daal la ko envoyé benn photo boo xam ne dama ko ànd ak sama doom bi bi ma 2017. nekk bu fekkee jëmu jël sama doom la mun waa jëmu jëlee de. man nag ma soog ma soog ko nete xaadim histoire bi. bi nga xam ne wax naa ko loolu xaadim daa ko la xaadim bu bokk mu ñëw mën a kuy kan la. xale bi nag kii de man la ak sama pap mën na ko léegi lan moo tax nga xam ne yow longu san mën na ko dañ ma dañ ma cee impliqué daal ndax bëgguñu bëgguñu kenn kenn xam ne xaadim mooy sama pap yaa ngi dégg. wax ci doomi jàmbur te ña ngay jéem a saane sax sant wa xale bi yaasin njaay la tudd mais xale bi yaasin looluy wuyoo. waaw léegi lu ci topp wax ji daanul ba déglul aare moo ko di ko yedd nag ne ko bu fekkoon tey jii yow ma teel nga maa xam ne ma xaada njaay moo sa papa de dinaa la gën a jàpp gën naa jàngal te doo fay eh, dërëm ndax man ginnaaw yàlla bu fekkee ne moo ko na alxuraan ba bind kaamil ba toog fii dafi jàngale de dinaa ko sant yàlla dinaa ko sant sa paar sa sa waajur ndax sa baay de moom ma jël fa ma nekkoon yóbbu ma njaareem yor ma fa ba man alxuraan chaque jour chaque semaine xaari mboolu ko chaque semaine xaari mboolu ko di waxtaan ak moom di ko gën di xëy ci papaam ginnaaw bi xale bi ne ko li nga wax dëgg la damaa xam ne ñii ñi nga xam ne ñoom fi indi boo ñu xamee ne yow yaa nga jox ko sam pap man mi fay jële te fii bëgg mu fi jóge te mokkalu ma alxuraan te mokkalu ma alxuraan waaye ba ñu xamee ne maa ngi wax ak xaarim dañoo gaaw dagg am njàngam jële ko fa donc bi jàng ma ñëw dem ma ñëw Sénégal daaw nii leen léegi man ab dërëm ma leen ko xale bi laa bëgg ngeen yóbbu ma ko ci daa daara jëm nekkoon ca xaarim mu àggale am njàngam bu am njàngam àggee mu ñëwaat ci yéen ñu ne ma nag mën nañ ko yóbbu feen mu jàngi mais du fu du foofa lank na ma duñ ko duñ ko yóbbu foofa man léegi la lan lanam ba paapa man taxawee ne sama doom lii laa ci bëgg nijaay taxaw na ko nañu nijaay taxaw na ko yow li nga bëgg yow nijaay en tant que rek nijaay rek taxaw na ko yow yow papa yow li nga li nga bëgg li nga bëgg mu doo am moo ma daal dem ci seen ci seen bu góor wax ko ko seen taw dem fa wax ak ñoom di wax ak ñoom di wax ak ñoom ba mujj waxuloo ak ñoom neen na bu fekkente ne may seen seen mag waaye bu fekk jox leen ko doom ma dogoo ak yéen ñoom ñu nangoo dogoo ak seen mag jooju yi nga xam ne mooy seen taw kër ngir xañ ma sama sama doom bi nga xam ci bi coow lu bari nag xam man mënatuma ci dara ci laa dem wax naan président tribunal bu Mbàkke Cheikh Niane leeral ko histoire bi àbba sedd mu mu ñu fiil dossier bi dépp ko tribunal ñu convoqué man ak ndaw si femme bi nga xam te mooy rek mooy jabaru nijaay ma ma leeral lépp li nga xam ni li nga xam noonu ne laa ko leeralee nii ma leeralee na ko loolu tribunal. tribunal joxañu rendez-vous ci ne seen seen seen bu jotop bañ demee ñu waxtaan na tribunal ne man nañ àndaale sama doom bi àndee sama doom sa président daal wéet ak moom waxtaan ak moom. daal ko yedd dikk tamit dikk nañu nañu nag yéen ñaar ñii. mën ngeen maslaa ba bu jubboo te du ngeen agsi ci yoon. ndax li ngeen def ñaaw na. ma ne ko man damaa maslaa ba sonn ndax kii de sama sama mooy sama taaw di sama nawle fas ñaar moon yàlla dinaan dama daje ak sama doom fii ci atit ci tribunal xalaatu ma ko soo di yàlla waxee loolu presque ndaw sa nga xam te nii moom laa ko dafa dug def maa jaan ci kanam président keroog président tribunal dafa dal dal ci kawam bi ñu président te ñoom ko ne ko na xale bi utu nañ ko sax kayitu juddu boo xam ne Xaadim Njaay lañ ci def xaadim lañu la ñu baara xamee waaye man awma benn pièce xaadim man suñ mag bi lañ ma tudde Modou Ndiaye moo nekk ci sama pièce bu ñoom xanaa bala ñoo utal kenn pièce daan pièce kayitu juddu laaj ma man ban tur ban tur moo nekk ci moo nekk man ci sama ci sama pièce ma yóbbu yóbbu yóbbu ma yónnee leen ko ñu utal kayitu juddu waaye man mal ma bi ma leen laajee kër kër kër bi ñu ko utal dañ mel ne jox la ko jotagut ñoom nag su leen dañoo su leen dañoo dañoo dañoo su leen nekk kër kër juddu boobu tribunal. seex ñaan laaj leen ne leen anyway indi leen ma kon kay kayitu juddu boobu ñu topp ci kayitu juddu boobu far yàlla def greffier greffe bi greffier greffe nag ma nekk Sénégal nekk naa Sénégal ma mat trois mois yoo xam ne du ko topp ndax boobu def naa Sénégal deux mois di wax na di mas la ak ñoom soog a dem ci yoon bi ma bi ma demee ci yoon defar naa fa deux mois waxum wala wala dafa defar na trois mois wala trois mois quinze jours tribunal tribunal greffe ligg àtte wuñu ma mu jël avocat bàyyee ko ko avocat bi nag di dem di dem ko ñëw dem ko ji dem bi yàgg ba léegi avocat bi di dem saa ba dem saa ba dem ñu am mbaay ndaw si nga xam ne moom laa seqal nangu wala ñëw mm, ba démb démb ñëw na waaye tamit que par par daal moo ko doon rambaay waddal. dal dégg nga loolu doomi jàmbur moom mii di wax doom la nar a ñàkk te mi ngi jàkkaarloog moom ñii ñuy ñuy jël doomam. mais ñoom dañoo ànd ànd ak moom ci yoon ñoom. accepté nañu waaw xale bi dem dem tribunal ah. léegi ñaata ci am benn mooy moom lañ dégg wax dégg guñu. beneen bi bi tax ñu téye xale bi bañ na luñ ko joxe. Mhm. dee li mu wax noonu la demee. Mhm. mooy waaj dafa lewet. Mhm. fii yëpp sax moom la fi bañ. <laughs> ci kër gi kër gi dina yëngu yëngu. boo xam ne sant bu ko lool ah, nu muy muy def. bu ma dañoo nekk ci réew moo xam ne. lépp yoon a koy rek. Ah, gis nga fi mu jaar ak. dem ca nijaay jaar dem taaw baak di ay non yëpp day guddu mais ànduma ak yéen sa doom la yaa ko jur. am nga luy wane ne yaa ko jur. waaw yaayam génn na àdduna. waaw amul kenn ku ci am sañ-sañ. bopp bi ñu ci am. wax dëgg yàlla jëli ko yëngal kër gi. Ah.